di gërëm maire de Thiès si euh, jàppale bi mu ñu jàppale pour que lii mën antu euh, di gërëm aussi askanu waa Thiès ak euh, famille sportive bi rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu football muy nawetaan bi muy ligue de Thiès surtout bi nga xam ne mu ngi def ay jéego yu bare ma si félicité président Pape Sidi Lo ak ñëpp ñuy nekk ñi ko toftal di wax aussi que vraiment tamit am nañ jàppale autorité déconcentrée yi muy gouverneur pour egg fi nga xam ne tey yegg nañ fi tank bu njëkk bi la il faut que décembre ñu dajé fi pour inaugurer li nekk li nga xamné programme forward la duñ ci yem parce que fédération am na yeneen projet yo xam ne FIFA euh, accepté na financement bi mu jëm ci jox ñu ay jumtukaay ay wàllu ay euh, jumtukaay si entraînement ak yeneen matériel yoo xam ne dañ ñu koy jagleel ñu nga xam ne dañ ko distribuer fële ca Kidougou si ay bés yi di ñëw mu jëm aussi ci tabax ay euh, maanaam ligue régionale ci ay bés yi di ñëw tam nañ dem Kaffrine pour def pause première pierre ñetti ligue yu jiitu muy Kaffrine Fatick ak Kaolack bu weesoo loolu am nañu ay projet yu gën a rëy mu nekk Demba Diop mu nekk maison du football bi nga xam ne këru football bi nga xam ne dañu ko bëgg a tabax fële mu nekk euh, makkaanu fédération ak yeneen bànqaasam bu weesoo loolu aussi am nañu yeneen projet ñëpp xam nañu ne Demba Diop ne dañ ko war a defar te ñu ngi ci sans oublier aussi hôtel fédéral bi nga xam ne dañ koy def ca euh, Toubab Dialaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne vraiment dañ si liggéey di nag euh, wane rek ne ñun état bi mu ngi def lu mu mën. FIFA mu ngi def lu ñu mën dañu jàpp ne léegi ñun suñu wàll def suñu si duggal suñu loxo pour mu antu te loolu moo waral tey euh, geste bi ñu def te dañ ci continuer ci yeneen acte ñuy poser ngir euh, ñun fédération sénégalaise de football état bi ñuy jàppale ak FIFA ñu mun tabax euh, maanaam ëllëgu football Sénégal boo xam ne li ñu jotagul am ba léegi dina mën a antu bu neexee yàlla. président de la fédération président FIFA président Talla Sylla aussi le maire de la ville ci taxawaay bu mu am signé aussi benn protocole ak fédération. pour tey ñu mën a defar gazon bi nga xamante mooy stade Maniang Soumaré ñun ñëpp xam nañ ne Thiès après Dakar moo ëpp ay club moo ëpp ay ASC am fi benn stade boo xamante ne gazon naturel la attanul yenn compétition yi ba ñu koy defar xamoon nañ ne bu ñu bëggee la li ñu def fële yàgg il faut ñu defar mañang Soumaré tey nag gis nañu ne état bi liggéey bi muy def fédération bi jot délégation de pouvoir tey ñëw na fekk si ñu ci liggéey boobu gannaaw ba mu amee ay centram ci tubaab jalaaw ak feneen tey ñëw na jàppale si la ville de Thiès la région de Thiès mais jàppale Sénégal yëpp ci wàllu infrastructure sportive loolu nag dañ koy saluer ci turu président Macky Sall di leen wax ne dinañ taxaw ci gën a taxaw seen wet pour gën leen a jàppale ñoom i tamit ñu xam ne liñ leen jox ñoom ñoo ko war a développer tey lii exemple la boo xamante ne dañ koy jox ñëpp kuy fédération pour que ñu xam ne boo jotee délégation de pouvoir du compétition rek mais lépp initiative boo mën a jël pour accompagner développement secteur bi nga yor da nga ci war a du kon moo tax ñu teew fii di di leen sant encore di leen gërëm di gërëm it ki nga xamante ne tey mooy def liggéey bi parce que kii def liggéey bi football na ci turu Sénégal muy Salif Diao mais ba mu bàyyee football toogul dafa dem créer société ànd ceeg ay partenaire am ba tey mu war a def liggéey bi kooku nag reconversion la boo xam ne dañ koy souligner pour ñu xam football amna def sport am na mais dafa am diir bu mu yem te bu yemee da nga war a continuer liggéey pour gën service sa réew. am nañ entraîneur national boo xamante ne ancien international la mais te gis nañu ñeneen ñu nekk ci yeneen secteur ñu yor ay fondation ñu yor ay société nekk ci yeneen secteur mais Salif Diao tey ci tabax ay infrastructure sportive bokk na ci li muy def kon moom tamit dinañu ko sant gërëm ko te wax ne initiative yi bu ko internationaux yi jëlee rek sportif de haut niveau dina yomb pour jàppale leen